Oustaz Mor Thiam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Xaaji Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara. jërëjëf Oustaz yóbbalu bés bi. waaw Xaaji Babacar yóbbal wi tey nag dafay ñëw ci. xam nga am na lu mag ñu doon wax tilimul. mooy luñ daan bind laxas ko ak sagar bu weex takkal ko jigéen ji. mu dem balaa moo tilim sunu boroom may ko borom kër. bii nag mag ñu tuddewuñ ko tilimul mais yàggatul. lañ ko tuddee yàggatul kon nag yóbbal bi dee ñëw ci lu ñoo tudde yàggatul mooy képp ku nga xam ne da nga yéex a dugg ci néegu sëy wala nga am njaboot bu yéex a dugg ci néegu sëy te nga bëgg sunu borom dimbali ko mu dugg ci néegu sëy ci lu gaaw dafa am benn aaya alquran bu nekk ci suuratul furqaan suratul furqaan mooy surat numéro vingt cinq pour ñi xamante ni bi xamuñu tur bi ci aaya cinquante quatre bi moom ngay jël di ko jàng mais danga koy jàng ñaar fukki fan ak benn moo tax ñu tudd ko yàggatul soo jàngee ko ñaar fukki fan ak benn mais lim bi nga koy jàng mooy danga koy jàng cent treize fois ñetti téeméer ak fukk ñett yéene ko sa doom bu amagul borom kër mbaa yow ci sa bopp boo amagul borom kër mbaa bu amagul soxna aaya bi mooy wa huwa alladi من الماء بشرا فجعله نصبا وسهرا وكان ربك قديرا 313 xaji بابكر استاذ موخ